coloré lay doon parce que doom la ci man doom la ci man Serigne Saliou ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nit defe naa comme li Serigne wax rek dafa ñaaw euh, nekk ci dëkk euh, bu noyaat amee autorités yi ñoo fi waroon teew sànq il a fallu ñuy woote de gauche à droite par rapport ak sunu ay connaissance mais sam benn xarit dafa dem ba déplacé wu toog ak pour mën ma woo mu toog ak moom ma wax ko li fi xew mais moom woote na au niveau euh, du sapeur pompier ñooñu ne ko carrément jot nañ information ba jot nañ fi ñëw waaye li tax mënuñoo ñëw nee na moom loolu da koo jaaxal ça veut que ñoom dañu toog rek seen coin de telle sorte que dañu xaar peut-être benn kilifa gu mag ku leen woo bu ñu mën a déplacé wu te comme li sëriñ wax rek ay xale yu sangu mu nekk plage interdite tey ñii ñëpp nii nekk fi di sangu tey am na loo xam ne boo ko gisee nga dégg noyaat au lieu que ñu taxaw fi sécuriser plage bi defuñu ko tey ci suba ñaari moor la ñu am nii nii te mais xoola xale yi. benn lañ gis benn lañ gis pour le moment suñu jarbaat ba tey génnagul donc maîtres nageurs yi dugg nañu xool nañ gisuñu ban moon lañ ne bu doon Europe la hélico yi dañ lay tiim dem xool yi wër ba gis koor bi ñu génnee la amaana sax boo labee balaa ngay dee di nga gis ku la secourir mais fii amu sax ku ñëw di la mën a defal loolu dafa ñaaw. parce que à chaque fois les mêmes problèmes se répètent il faut que ça cesse ñu bàyyi politique bi politique bi yii moo gën a importance ñu sécuriser xale yi sécuriser dëkk bi moo ëpp importance bu tayee ñu ne agression bu subay ñu ne noyade les problème sa répètent nañ waxante dëgg am na loo xam ne Sénégal bu bëggee mu développé war na mën a dépasser étape bii nañ waxante dëgg. d'accord waaw comme niñ ko gisee ci plage yi tey suñu jarbaat bi moom dafa yaru de telle sorte que du dem fenn gars yi sax ñu ngi ko doon wax sànq ba léegi xëy na ndogal tey moo ñëw rek mu demee nii mais ñu surveiller waat xale yi bu baax xam aussi bu ñuy dem plage wala piscine sax léegi dañ ciy lab te dégg nañ ci noyade yu bari donc il faut une tel une une une belle surveillance boo xam ne war nañ ko mën a bàyyi xale yi ñu xool ko parce que en fait xëy na yàlla mooy ñëw rek des fois doo comprendre mais nañu surveiller xale yi waaye ñoom bañ demee ñëwaatuñu ba léegi tey ñun ñoo fi nekk ñun ñii entre famille ñooy woote de gauche à droite suñu ay connaissance pour woote pour laaj ba xam dinañ ñëw wala du ñu ñëw à cette heure fan la sapeur di ñëw di dugg ci géej gi di xool koor heure bi lëndëm na lan la ñu waxoon dañuy bàyyi ba ba mu ba mu dal ñu doog a ñëw woote wu ñu ñëwuñu ñun ñooy obligé euh, sànq ba léegi ñu naan maître yi dugg leen génn leen ñoom ñuy dugg aussi di génn sànq ba léegi di di di di di di remplaçante neexul quoi nañ waxante dëgg ça fait mal au cœur neexul boo ñàkkee moom ñàkk nga gaa moom mais yii dafa war a dakk parce que chaque jour ça se répète ñun ay sénégalais la ñu am fii la mais am na loo xam ne bu ñu dalee du ñu dalaat du ñu dalaat bu yàggee ñu nekk ci kaw ñoo dimbaliwul ñu nekk ci suuf nañ waxante dëkk ça fait trop mal. jaar ngeen fu nekk pour euh, rek ñu dégg leen pour xam itam seen euh, cri de cœur bi euh, seen jërbaat lab depuis huit heures xaw ma neuf heures rek léegi sapeur ñëw na waaye lam ci waroon a def dëgg-dëgg defu ko yéen a ngi toog ba tey di xaarandi. Euh, maa ngi leen di xaar bu baax euh, yaakaar naa ne man wax ci média sax naam ci laa ne mais bariwul li ma koy def mais damay demander chaque jour ñun ci ban senegal la ne bu nu waxee ñu ne presse bi wax nan wala presse bi nii nangam man ci presse bi laa ne te ñoom ñi may waxal xam nan ma bu baax man la Malick président des jeunes reporters xam naan ma bu baax di commencé ci ministre de l' intérieur ministre de la communication ñoom ñëpp état bi ñoom ñëpp xam nan na mais lii ñu def teguñu ko fenn que ça soit clair te bu ñu yaakaaree ne de amul mbokk parce que boo bu ñu yaakaaroon ne am na kenn ku leen mën a woo ku nekk ci kaw ñoom ñëpp dañ fi ñëw. sapeur ban droit am ci ñëw repêché kenn ki après mu abandonné ay pour ay recherche mais fi nga repêché kenn ki boo balisé woon di nga gis ki ci des bu nu yaakaar ni Sénégal ay dof la parce que man bëgg a jël sunu dëkk bi def ko ci lan Sonko nangam dafa doy. woo naa leen léegi woote naa fu ne su ma jógee fii polise point E laa jëm commissaire bi dinaa wax ak moom parce que de un naka nga mën a xëy depuis ce matin nga am deux morts. supposons kenn ki gis nga ko gisoo keneen ki après booy nekkaat ci géej gi mel ni dara xewu fi beneen bi ci des est-ce que xool géej gi ay xeer kese fi ne li ko wër yëpp ay tabax la léegi dëkk bi boo amul branlon boo deewee yaag mbóot yaag mboot ak kañay yéen a yam pour quelle raison sapeur lu pour lan la. du ñu wuyu kenn nag. non sapeur lan mooy seen devise lan mooy seen devise ñoo sauver ou périr. sauver ou périr bàyyi nan ko man maa wax loolu ñoom ñi may waxal xam nan ma. kaw noyade la wax quoi ñaari nit ñu indi ñaari éléments. su ma même bu dee benn nit ñaari éléments yaa ngi imaginer deux éléments ñaari éléments amoo kano amoo kano bu bu daw bu daw ci géej gi. chapeau dafa waroon am kano bu daw ci géej bu ñu demee ba gisuñu ana marine nationale non bu ñu yaakaar nit ñi ay dof quoi. ana marine nationale marine nationale mais fii euh, boo demee Soumbédioune ñoo nga fa am nañ fa base non wëndeelu la ñoom ñëpp jot nañ ko ministre de l'intérieur jotuma ko envoyé naa ko message mu ngi Touba xaw ma ndax ki ma ko yóbbante jot na ci wala jotu ci moom xam na ma bu baax xamante nañ man ak moom te ñoom xam nañ ne man du ma wax ci caaxaan dugguma ci ay détails mais lii il faut mu dañ ren ñaata cas de noyade lan am ñaata cas de noyade am na kuñ kuñ kuñ ci woo léegi mu naan non instant bi ñëwoon nañ fa léegi lañ fa jóge ay 18 c'est pas vrai c'est pas vrai man maa ko wax. il faut que nag ñu ci war a jot jot ci nañ ci taxaw ñu génnee ko ñun gëm nañ yàlla ñun. gëm na ne lu ñëw dogal la dañ koy nangu loolu dérangé wu boo ñëwee famille bi nga nekk gisoo ci kenn ku kanamam triste wala déedéet nun ay murit lan te ay cantaakoon lan lu ñëw suñu borom la lu mënti ñëw ci àdduna suñu borom la mais dafa am lu gën a rafet taxawu dañ leen fee teg ñoom pour loolu police dañ ko fee teg pour mu artu mais bu police ñëwee def benn surtout vacance bu jotee xale yi dañuy bëgg ko. xoolal géej gi ñuy wax ñaari fan lañ. moom yéen a ngi koy yëg.